li ñu wax ni diw moo def diw moo def diw moo def bala muy def appel à témoin dafa war a woo ñooñu mais sañu leen a woo xam nga lu tax dossier bi bu fekkoon procureur daf ko intéressé ni nga wax ni dafa auto autosaisir dafa waroon autosaisir depuis coow li commencé parce que loo nga xam ne yëngal na euh, malayka ya nekk ci kaw asamaan wala jinne yi dëkk pôle nord maanaam waa BBC ba ñëw fii ci Sénégal lëmbale Sénégal yépp procureur tey la ciy wax te lu mu ci wax mooy maa ngi xaar ku mu intéressé est-ce que dossier wu Khalifa Sall dañ defoon est-ce que dossier Karim est dañ est-ce que dossier ñeneen dañ defoon noonu dañu xam y a des faits massifs constants flagrants yaa ngi dégg nag ay union des magistrats di wax ay ñeneen di wax vraiment ce dossier histoire du Sénégal ñu jugé ak génération sénégalaise une réunion a ñëw ñu ngi interpellé képp sénégalais ak foo mënta toll ak noo mënta mel li fi xew c'est une catastrophe. waaw ah, balaa ngay def sa annonce di nga dem wuyu ji. benn ñun lu ñu décidé def wax nañ ko dinañ saisir CREI dinañ saisir assemblée.

bu waxuma ko fan yi yëpp. donc doo dem defal naa non waxuma naa dem waxuma ñu dem dama amay naataango yu ñu àndal CRD mun naa wax sama sentiment mi ma dem foofu majorité ba wax leneen mu safaanook loolu et dafa am ñu ma bokkal euh, mouvement aussi république des valeurs donc la ma nar a wax ba dama ni bu ma fa demoon it munoo fa wax lu bees loo xam ne.

bu ñu tàmbali ci nguuru président Ablaye Wade ni procureur xaar ba tey naan ne ku am lu mu ci xam na ma fekk si loolu dañuy dañ koy naqarlu tiis lu ko d'abord bala ñuy wax lan la ñuy def beneen affaire bi wax xam ñu ne parce que def naa ne boobu moo leen soxal ci ci rapportu euh, inspection générale d'État bi xam nga dafa nuroo ñu ne ñu ngi yuuxu luubal alalu réew mi

faagaagal wala gàllankoor ñu wala kii daal di jéem a xool nañuy tëjee dossier bi en règle mais lii lii di rapport inspection générale d'État bi dañu ne dañ koy enquête boobu waxuñu ay appel à témoin de ku xam extra dañu ne dañuy enquête confié ko section de recherche xam nga loolu lan la ñu nuru mooy dañu ne am na ñu luubal alalu réew mi ñooñu ne nañu xool kan moo ñu yoole kan moo feeñal kii bi kan moo feeñal mbuxum bi ak ak preuve yi nga xam ne mbuxum am na waaye waaye bu fekkee ni preuve am na mbuxum am na rapport boobu procureur daf ko waroon njëkk a jël am